مع الأبرار عسير yow ngay a borom ndek mission bu am solo la mission bu yàlla gërëm la salaamaaleykum auzu billahi min asaytaani rajim bismillahi rahmani rahim fastaqim kama umirta wa man taaba maaka wala tatqaw wa salaatullahi wa salaamuhu ala man ursila rahma lil alamin wa ala alihi wa saabi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din iqwaani fi llahi wa aqawaat assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu ngi dalal jàmm di siyaara boole kooka tattagal ginnaaw ba yàlla tatagalee leen ba pare ñi nga xam ni ñoo fi teew tey teewal sëriñ bu màgg bu baax ba waaye gu ragal yàlla ga waaye gu bari woon xam-xam ja waaye itam mu jubboo woon ak boromam nga xam ne nit ñi reerewuñu ko suuf reerewu ko asamaan reerewu ko waaye malaaka yi ñoo ko gënoon a muy ko xam ne kenn du mer ak lu mu rey rey wilaaya soo ko ne sëriñ bu mag bi Seex al Xadiim radiyallahu anhu ñuy siyaare bu baax nag njabootam yi nga xam ne ñoo fi teew tey nga xam ne jàpp naa ne ku teew ci jeetaay wi dafa mel ni danga doon waaje xaj rek ñu far ne la arkaanu la xaj mën nga ko defe sa waaye dañuy ñëw far nga defe ko foofu noonu la mel mu ngi mel ni ñu ngi màggalu Tuubaa waaye ci gàttal yéen mbokk yu tedd yi nga xam ne yéen dikk nga xam ne li leen fi taxateew alxuraan tudd na ko ñun dey ñu ngi wax ci mbooleem ku fi teew di wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah moo xam ngay taalube comme man moo xam ngay kilifa diine moo xam ngay imaam moo xam ngay boroom xam-xam buy jàngale lislaam ñun ñépp ñu ngi maase di leen dalal jàmm di leen wax ne marhaban bikum wa ahlan li ñuy uh, gën neex nag mooy bésum tay mi dañ ci fajje ay soxla yu mënoon nañ koo ñakka faj ba dee benn soxla wu gën am solo mooy yéen yépp ngeen xam ne innamal muminuuna iqwatun loolu benn décret la woo xam ne yàllaa ko doggal ba pare yàlla moom doggal na bi pare ne ñun ñi bokk gem yàlla bokk lépp ñun ñoo bokk waaye def ne faslihu bayna aqwaykum ne nag faw ñu fexe ba rattaxal sunu diggante lii nag bokk na ci lenn loo xam ne mën ci mën nañ ci sedd ñetti yëf foofu lañu ñuy yem bu soobee yàlla sëriñ Tuubaa nekkul sëriñ woo xam ne dafa nekk sëriñu tariqa waaye sëriñ Tuuba dafa nekk sëriñu lislaam boo xam ne boo seetloo fi mu jaar ak lim fi liggéey bàyyi mu wóor la ne guddi gu mel ni suñ ko amee waasin lu rey la nan la nekkee sëriñu lislaam mooy sëriñ Tuuba bi mu ñëwee dara ñoru ko woon lu mooy lislaam ak lim ci daj ak fim ci yegg te nag bariwu ci woon ndimbal ndax ñi ko waroon a dimbali ñi ci gën a bari ku ci nekk yaakaaroon nga ne boo ci laye walla nga dimbali mën nga cee tàq waaye terewul bam liggéeyee ba boromam sante ko bi jubbook moom woo ko ne kaay ma la waaye dafa mel ni dangay bind leetar def benn adresse wax ñan mooy sa àndandoo muridu laa la wax ne ñooñu laa bëgg a àndal képp ku na may ñëw fi yow moo xam maa ko jàngal moo xam jàngaluma ko moo xam dafa tuub ci man moo xam tuubul ci man moo xam sax daf ma doon gàllankoor waaye bu tuubee rek danaa ànd ak moom ñëw ci yow ñu bëree ngi ni dañu yaakaar ni mën nga laaj jullit ne ko ndax murit nga mun a déedéet loolu njuumte la parce que yoonu murit du tariqa yoonu murit pos-pos la woo xam ne bi mu sottee boromam def ne léegi daal man léegi nag li ma doon def lépp def naa ko jàngal naa leen ko waaye kaay leen nag ñu ànd ma ànd ak yéen won leen ki taxoon may sonn nii muy muridu la benn waay joo xam ne góor gu baax goo xam ne yàlla def ko woon ak muy dem bugg fee bàyyi kenn am na noo xam ne su ko waxe woon tijaan du bokk laayeen du bokk xaadir jo bokk waaye muridu laa la wax kon nangeen ngeen duggal ci seeni bopp bi ne yooni Sëriñ Tuubaa bii duwul yoon wu nuy naa duma murid fi may mottalee mooy Sëriñ Tuubaa li ma liggéey yépp ci ñetti yëf la ko gën a liggéey muy ci ragal yàlla jaamu yàlla bokk jullit yi yéene leen li mu yenn boppam ñu ngi nettale ne dafa am benn bés mu jóge njaareem di dem Touba waaye am ku taseek moom miin na ko njaareem booba sax demagul Touba mais moom ndeysaan muy wax ki mu àndal ndax kooka miinu ko woon mu ne nit ku yiw ku baax ki mu ne ko mooy sëriñ gi dëkk Touba. mais góor gi ci ragal yàlla wa dafa dox dox dox dox mënul dox mu woo ki mu àndaloon dee ko ne ko demal ca ne ko demaa dal tuubaa rek waaye dëkkuma fa man aljana laa dekk fale fa yàlla nekk mooy alaaxira daal laa dekk kooka ñëw wax ko loolu ne góor gi ne na dëkkul tuubaa def fa dal rek kon seetal ma ragal yàllaw yi loola nag la rawe gaa yi ci jamonoom ndax ina akramakum indallahi atqaakum te ku ko gënoon a ragal yàlla rek def lu ëpp lim defoon waaye nag am na lu ñu def lu tolloog lim defoon fu ñuy motale ñun dañu amul benn durwaawu ñàkk a nekk taalibu Sëriñ Tuuba ndax lan sunu sëriñ ga suñu mbokk ga Alaaji Maalik moom dafa nekkoon mbokkam nit ku ko bëgg lool ba ba mu amee xew-xew gu màgg ga moom Serigne Touba nee nañu ba muy dem Alaaji malik ndeesaan ca mbaax ma mu ngi ci bundi mu ngi bind ci benn fooy asmaaw ahlu badar boo leen yoree kenn mënu laa lor mu jox ko sëriñ gu màgg gi wax ko ko ne lii asmaaw ahlu badar la yàlla aar na la ba pare waaye lii suma ñëwante la ma def ko participation mu muuñ ne waa ahlu badar yëpp ak ay malaakaam sax eh, sant naa la waaye yàlla yëbaloon na leen ñu ngi ànd ak man bëgg maa dimbale kon kooku mësul noonu mukk Serigne Touba mosu koo noonu góor googu it foofu laay motale mooy Alaaji Maalik li mu niroo moom it ragal yàlla rek moo ko fi bàyyi woon moo tax ñu nangu koo roy moom dafay tukki nekk ci benn saxaar ndeesaan jëndagul buye nag dafa ñëw di waaj a jën buye am kuy naa man de am naa problème waxu doon problème sa bopp waaye suñu wax la rek tey man de am naa njuuma ñu ne lan mu ne suma paasu retour dafa manqué góor gi fekk jëndagul buye mu jël lim yoroon ci poosam yëpp jox ko ko sari cawaat la mu waroon ne jënd buye aller retour nit ñi mu àndaloon nañ ñibbi di waaxu rek ñu topp ko lan mu ne kaay leen bi mu déggee saxaar gi départ mu ne teg ñàkk toog ba dal mu ne ki ma ki nga xam ne tukkeem def ko wóor ñib seem wóor ko bi muy xalaat paas bi muy ñib see na muy def alaaji Malick du bokk ak moom saxaar kon ñii nii lañu àndee woon kon ñu ngi siyaare bu baax suñu xarit ñaari Moustapha yi ku ndaw keek ku màgg ji ku màgg ji nag yàllaa ko xam ku ndaw keek yàllaa ko xam waaye su sumay xarit lañu su may Abdou Jam lañu di siyaare ñi fi teew comme ni mu ko tàmbalee woon di am mbégte ci lu lool asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi mina sheytaani mbokki jullit yi fi daje asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bi sante yàlla julli ci yonante ba Moustapha alayhi salaam ñu ngi telloon jukkal bu baax a baax moom borom bi waaye di gërëm ki nga xam ne kii tey moo waral lii yëpp muy yonentam Muhammad Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di mag ñi baax ñi nga xam ne lii yëpp tey ñoom ñoo ko waral parce que ñoom ñooñ ci nàmpatal ba tey ñu am sañ-sañ am liberté di pratiquer suñu culte di pratiquer suñu diine waaye aussi di ko def ca nanga xam ne noonu la ko mag ñi bëggee woon di ko jaare yoon nga xam ne wii moom lañ tracé sànq bi ma alxaaji Mouhamadou joxe léegi kàddu bi sama xol dafa sori ndax dafa nekk koo xam ne kii kóllëre euh, kóllëreem ak man fii la déparé waaye mën naa ne baytulaay aram la ko yàlla taxaw ne ndax nii mu jëlee micro bi jox ma noonu la jëlee leneen loo xam ne lii lu rëy ci man dafal ma ko mu tombee yow man arafat te loolu yàlla mën ko seede ak malaaka yi kon kooku bu yàlla dafee tey ñu dajawaat fii ci bés bi mu joxaat ma teraanga ji teg ma ci sees bii nga xam ne dëgg-dëgg lott naa di toog ndax sama doye di waaye lott naa aussi di ci toog ndax assemblée bu am importance bii ak yaaram yii nga xam ne tey ñu ngi sama ginnaaw waaye lu mënul am lu mënul ñàkk moom am rek doon ndax loolu la yàlla dogal ñaari pouvoir yi ñoo fi nekk di ànd te wóor ñu ne ñun ñi nga xam ne ñoo féete pouvoiru adduna bi xam nañ ne pouvoir bii ñu ànd ak tey moom mooy lépp bu ñu taxawee ñoom ñun dañuy effacé wu ndax seen mission bu matee daanaka ñun sunu mission dafay mel ni toolu mbeya maanaam tool boo xam ne bay nañ ko ba mu set nga ne naa ci jaar rek pour barkeelu noonu lañu mel ñun administration d'État ak ñi nga xam ne ñi tey ñoom ñooy sëriñ yi seen liggéey ñun sunu liggéey day ñëw en appoint rek moo tax euh, bésu tey bii tey dañ ciy sant yàlla rek di ko ci gërëm ndax dafay fekk si loo xam ne lii saa yu fi defee tànt bi nga xam ne bii moom lañu fi tànt at mu jot te muy premier gàmmu bi nga xam ne moom mooy njëkk ci gàmmu yi fii ci Ñaaxaar muy gàmmu sëñ Modou Mbacké toujours li may faral di wax mooy tundu Ñaaxaar ak li ko wër am na chance ndax nag li tax ñu am chance yàlla daf lañ daf ñu defal lu rëy te place bi ñu toog seede na ne su ma jëlee au mot ki nga xam ne kii jëmm ji fi jóge léegi muy sëñ Babacar Diouf Mbul mën naa ne këru diine yi ci Sénégal yépp dañuy tant fii di fi di fi di fi di fi di fi fàttaliku rasulillahi sallallahu alayhi wa moo tax ci waxam bi nga xamee ne nee na euh, mouridisme yoon la aw yoon la waaye aussi idéal la donc romb na loo xam ne ni tey war nañ ko mën a féetale si tarixa te bu nit ñi poussé nag seen seen seen seen xalaat ak seen xam-xam ak seen gëstu dinañ xam ne ki nga xam ne kii tey moom mooy borom yoon wi te defar ko ba mu jekk bàyyil ñu ko fi dëgg-dëgg gis-gisam ak philosophie am romb woon na tarixa ndax jàng nañ ci mag ñi ne avant muy ta muy defar yoon wi di ko wattul boppam ba tey ñu mën cee tegu fekk na yoon yi fi nekkoon yépp jaar na ci bu ci nekk mu pratiqué ko kon loolu dafay wane ne lii mu talal tey nii te tey mu waral yoon wi nga xam ne moom moo waral caravane bii nga xam ne ci sunu xalaat bu gàtt kat dara taxu koo jóg lu xeeñtu li nga xam ne lii moom mooy mission bi nga xam ne moom la fi sëriñ bi mag bi bàyyi woon jaarale ko ci mag yu baax yoo xam ne jéggaaniwuñ leen fenn waaye ci doomu réew mi lañ doon jóge ci réew mi dem uti xam-xam dem uti li nga xam ne li tey moom mooy liy dëgëral seen kiraay ak seen toogaay ba mën a assurer seen mission tey lu toll ni ña nga xam ne ñi tey bu leen neexoon foofa ñu toog ku ñu soxla mu fekk leen fa ku ñu woo nga ñëw lu ñu bëgg ci yow am ko ci yow ñooñu am modestie bu toll ni initier caravane na fépp foo xam ne fii missionnaire jaar na fa maanaam koo xam ne kii dañ laa jox mission bu wóor ne la demal barab sàngam nga yeggale fa yéene bi nga xam ne gii kilifa gu mag gi amoon na ko ak ñi nga xam ne ñoom la fi bàyyil yoon wi te gën ci ñi nga xam ne ñoom njëkk njëkk nekk ay xalifam tey mënuñ lu dul rafetlu ko parce que c'est un grand honneur kon ngeen jàpp ne tey yéen waa karavaanu jaar-jaaru màggal gi defal ngeen ni ñun waa Ñaaxaar à travers sama modeste en tout cas personne honneur bu rëy rëy sagal ngeen waaye sagal ngeen aussi ku baax muy sëriñ Mouhamadou Mbacke ñu koy woowee affectueusement sëriñ Modou Mbacke bu Ñaaxaar xanaa xamoo ne boo demee ba nga xam ne bii. en tant que koo xam ne dangaa am mission boo xam ne buy taw buy noor buy nawet da koy dox bu la nit ñi wuysee ak bu la nit ñi wuysul da koy dox ndax ki la jox mission dafa mel ni ku la yóbbal ku la yónni rek jox la paas ak yóbbal waaye nga war a mën a ñëw def mission bi ba tey nga war a mën a teg sa bët ci liggéey bi nga liggéeyoon yaakaar naa ne lu mel ni bu ñëwee fekk si la mënul doon lu dul fierté kon am naa yaakaar ne sëriñ bi fa mu mën a nekk ca Touba yàlla na yàlla yokk ay fanam may ko wér moom sëñ Modou Mbacke tey xolam sedd na ndax yàggul dara ci tabaski ji ñi ngi toog di waxtaan fekk ma ñëwoon ziare ko mu may jamono yi nga xam ne yi dans les années ci la ñëw fii ñaaxaar fas yéene liggéey liggéey bu bii nga xam ne tey moom moo war a lii tey moo war a tant bi mu koy fàttaliku ak nostalgie waaye di ko fàttaliku aussi ak koo xam ne am na santiment que ne mission am réussir na ndax nag lu nit gàtt gàtt nopp xam ne ñaaxaar gii kat altine ba aljuma jàpp samedi ba dimanche guddi li nga xam ne moo ñuy berse di ñu wéttali suñuy guddi mooy baatu laa ilaha illallah ak nu ñu ko mën a waxee na te ay xale yu ndaw di ko yëkkati. guddi ak bëccëg du ci boole di jàng ay xasida dama ne loolu kiraay la te xam nañ ne loolu bokk na ci li nga xam ne li tey moo ñuy leeralal suñu yoon waaye moo ñuy nampatal si suñu biir xol diñu xamal ne li nga xam ne li moom moo jiitu te moom mooy mujj mooy ngëm ngëm gu sell mooy ak taalibe mooy ak nangoo liggéey mooy nangoo jaamu yàlla di def ay ndigal di bàyyi ay ter loolu sëñ bi ak caravanier yi ak mbokk taalibe yi man sous-préfet maa koy seedeel dëkk bi musuma toog bañ wooma ne ma lañ lañ ma wooyee ñu ne mbootaay goo xam ne gii tey na ak xel bu ma ne tey na ak xel par ak yëngu-yëngu jamono musul am toujours les mêmes personnes ñoom ngay gis ci même barab yi ñuy liggéey même liggéey dañ cee dem ba ñun ñëpp xamante nañ ba kenn ku ci nekk tey war ngaa mën wax sa morom ci lan lay yëngu kon loolu mën nañ ne njàng bu mokk la te ki yaa am yaakaar ne moo ñu ko jàngal tey ba mu mokk mooy seen Modou Mbacke bu ñaaxaar ñu ko ci gërëm di gërëm njabootam di ci jiital sëñ Moustapha ak sëñ Abdou Xaara Jiili ñoo fi nekk de ak ñun waaye tilimaluñ nekkin bi fu ñu leen soxlaa ci mbiru diine fu ñu leen soxlaa ci mbiru euh, liggéey fu ñu leen soxlaa ci mbiru jaamu yàlla ñi ngi fi sëñ Moustapha mi mooy wan ne loolu yëpp dafay wane modestie ak discipline taalibe murit ñun moom la ñu xam waaye mi may wax ne mag bagam kilifaam say xabaan mi ngi fi loolu yëpp dafay woon discipline rakk topp mag donc loolu nañ ko boole ci li nga xam ne lii bokk na ci jaar-jaar yi bokk na ci xarbaax yi ndax nag euh, tubaab dafa ne même dans le droit positif dañ ne le pouvoir absolu rend absolument fou waaye yoonu murit li nga xam ne lii ñun lu suñu xam-xam gàtt xam nañ ne moom lañuy ñuy moom mooy la discipline discipline boobu nag dëgg-dëgg bokk na ci li nga xam ne lii tey moom la ñuy royee Sénégal moom lañ naw Sénégal ñun fi ñu toog. wóor na ma ne boo demoon ba Congo boo demoon ba Côte d'Ivoire boo demoon ba Gabon ci waxtu wi nga xam ne mooy période bi nga xam ne mooy précédé màggal bi bir na ma ne même programme ñu ngi ko fay exécuter da dem ba nga xam ne même ñi nga xam ne dañoo nekk en mission commandée rawatina ay militaire ak ay gendarme kuréel yi dañ ko fay taxawal di ko dundal. ndax eh, loolu yëpp li ko waral mooy li nga xam ne dañ leen ci diine te diine jooju fépp fu ñu dem moom la ñuy ànd moom la moom la ñu fay ànd ak mën na leen seedeel ne comme que yàlla may nañu chance boobu ñu def ko boo demee ba màkkatal mu karam da ngay sentir benn fierté en tant que sénégalais makka yaatu na lool Sénégal bokk na ci ñi gën a néew ay pèlerins maanaam ay ujaaj waaye. ndekete quantité ak qualité duñu benn mën naa saña wax ne lay Sénégal di yóbbu qualité la ndax barab yi nga xam ne yii mooy ñetti barab yi gën a yi gën a fonk ginnaaw aram ba di màkkatal mu karam mun na ak arafat ba Medina da ngay sentir la présence des talibés rawatina les talibés murit ñuy jàng alxuraan di jàng xasida loolu am na ca màkk te kenn mënu ko natable di joxe ay lekk di joxe ay ñam di dimbale ñi nga xam ne ñi dañoo dañoo lot di dimbale ñi nga xam ne ñi dañoo ñàkk di dimbale ñi nga xam ne ñi dañoo am ay tolof tolof te loolu suñ ko sañee def yàlla ak ki nga xam ne kii moom la fi yàlla teg muy Serigne Cheikh Sidi Mokhtar moo tax donc loolu aussi mën nañ leen koo euh, seedeel wane ne loolu yëpp dafay dafay dafay confirmer li nga xam ne li moo leen tax a jóg en tout cas suñu xol sedd na te noonu mu seddee aussi. noonu la suñu xol ay kilifa seddee ndax mbayka bu fekkee ne mi ngi fii si jataay bi xam na li ma wax ndax ñoo nekkoon tey bureau gouverneur mais recommandation ba fa génn mooy képp koo xam ne kii nekk na ci ñun représentant de l'État muy fële ca jaxaaw muy fii tey si ñaaxaar muy suba ca Tataguine ndax war nga ne dem joyin euh, ba ca préfecture Fatick kenn ku nekk jox na la ay directives mu teeru leen pour mu ànd ak yéen pour mu saafante ak yéen ndax xam nañ ne mission bi ngeen di dox mission d'état la mission wu jullit la waaye mission wu yërmande la rawatina waxtu wi nga xam ne euh, si ngeen jóg waxtu wu baax la ndax dafa jiital euh, maanaam euh, njeexitalub nawet waaye toll fi nga xam ne fii yàqu weesoogul yàqu weesoogul ndax ñorteef bi mu ngi ci biir àll bi soxla nañ ci ñaan soxla nañ ci ñaan yu am solo ba nga xam ne baykat bi lii nga xam ne lii euh, euh, dénkoon na ko suñu borom mu jàppale ko ci ba waxtu wi mu bañ ci am benn benn benn yàqute mu bañ ci am benn mbetteel ndax nag nawet moo demee noonu waaye jàmm ji nga xam ne aussi bëgg nañ ko ci réew mi nga xam ne souvent front sociaux yi ndax doomu aadama moo mel noonu waaye barabu liggéeyukaay aussi moom moo mel noonu ñooñu ñëpp aussi ngeen def ci ñaan ba nga xam ne la ñuy soxla di ko ñaan dina doon loo xam ne dina dina dina dina dina dina jaadu waaye nguur gi nga xam ne moom la ñuy jàkkaarloo tamit dina doon ki nga xam ne kii dina am une bonne écoute ba mën leen jox satisfaction par rapport ak ñu bëgg li nga xam ne tey sëñ bi dox na ko bi école di tëj moom ak euh, sëriñ euh, sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amin dox ko ak ñi nga xam ne ni ñoom ñooy syndicat jàngalekat yi ba yàlla dogal ñu mën a am une année scolaire bu jeex ci jàmm ak salaam ba nañu def examen ñaan googu yàlla na continuer pas-pas googu yàlla na continuer waaye déglu gi yàlla na continuer ba année scolaire 2016 2017 bii ñuy digmal yàlla def ci jàmm ndax nag seen bi li ëpp say taalibe ay élèves ndax dëkk bi ñu nekk dañoo comprendre que ne diine du la yàqal sab njàng diine du la yàqal sa liggéey diine du la yàqal sab yar diine du la yaafusloo diine du la jox de gros air waa ñaaxaar tudd ñaaxaar bu ma ko waxee arrondissement bi yëpp siin yëpp comprendre nañ loolu moo tax sëñ bi ah ca nu ma ko waxee woon ca commencement ba en tant que représentant du pouvoir temporaire maa ngi sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñooñu ndax ñoom ñoo ëpp ci taalibe yi waaye am nañ pas-pas gi gis nañ ko ci ñoom duñu mën a guddal ndax suñu xol dafa sedd mën nañ am fu ñu commencé mais mën am mënuñu am fu ñu jeexee parce que kii c'est un grand honneur ndax caravane yi yàggu la commencé waaye ci biir ñàngami at ñu ne ñëw nañ ñaaxaar dugg ci ñaaxaar wër arrondissement bi yépp vraiment fierté la lépp lu ñu fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu tànk yéen fi duggee ba yéen fi génnee yépp yàlla na doon lu yàlla gërëm yàlla na doon lu yenent bi gërëm yàlla na doon lu Serigne Touba mu bañ a doon suñu mujjantalu gisee ñuy gisee ci bés yu mel nii bés yu gën a neex suñu mag ngeeg suñu kilifa yàlla may leen wér fàttewuma suñu sëriñ Moustapha sunu sëriñ Moustapha nag bu ma ko waxee mooy suñu sëriñ Moustapha Mbàkke bu seen Sidi kooku moom bokk na ci ñi nga xam ne ñuy tey moom la ñuy tiitaroo yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér may ko ay kilifaam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci gu gaawoon a kaajeg sabab sëriñ tuubaa foogaameere te daan na re sëriñ tuubaa daan na kaa layele fata a mbiraase seex rabale a bisu lay jàmm a sëriñ tuubaa waa hmm? ngi mbiraase anum sëriñ tuubaa a mbiraase de mi et kelu jibu e sëriñ tuubaa a mbiraase de mi seex ibra faal mi na et kelu jibu nda koy basine sin Touba a jega ngasima ngooxin den fop a ibra ba ndesañe dara nda saño jawa futami sarin a wolis xaalis a kayit a waar wolis kene bañwaar xaalis ngur a fi o boor xaalis xajar a laye ndetaka cooxa Modou Moustapha Mbacke lay ne ibra ba ka te a futale xëy te da mira suuf ke da njik na na sin Touba ba dalay ne sëñ Modou Moustapha Cheikh Ibra de jox kenn ku tere xëy ànd ak kenn xaalis rek bon koy ke i na arab ka leya ye wala hadis al waladu kastu habi ba o mbi pakite foona ba a naqa leŋ no ndaxar ne o ɗegin ten refo ɓiyo nge um fooge koy ke moƴna foor no Serigne Touba rete inuna me sëñ Modou Moustapha retega ger na la yo maam Thierno Birahim maam Cheikh Anta foog fappeten fop ko ref na kaaju fe mi jeg ka Touba sëñ Bara Mbacké e mi jeg ka Touba tax baax sa bindel deyi a wirtuwanga ndok ne xa lokana kep te bipina ndok a keɓale kap te ba mi ndekki ma Cheikh Ibrahima lay ne ah baara rek basaate ba nit te doxin te leer bisimilah jam baara kay a ah, andaye Cheikh Ibrahima waa kii Serigne Touba waa kii menacé te tax tamit ki tamit na o oh, sëñ Modou Moustapha Mbacke koy te i njegu ɓiyonge ten te layel gaynde Fatma asini i ndek o jaagu o njegu o ndaan Serigne Touba o boɗu oxa genna daro xurus jaxaw to kene fop mede ɓeenan karawan fop mbaage ñigo kene sëñ sëñ Tuuba mbootu moo barkew moo fop no sëñ Moodu Moustapha Mbacké refu sëñ Moodu Moustapha Mbacké rete indoona mbitam fopum nana gaynde faat ma na lay cosaan xano oxu na ne o ɓiy xano lay an caacina Euh, Lat Joor ngooni laatir ten xesu agar o jaxawa soɓa bursin ala e layanamo a bursine o kenara ko simna ta leyne ka ɗana a ɗana bo yoori o tabakane cuñugoke a inu a gara soɓa Lat Joor ngooni a cooxno ɓay Lat Joor ngooni leyne mi de kam ref o kenaro bugo fudu ta leyne he wagiro fudu fokkano cooxit guban guban koy bata layeena fato ande piso piso na gubanel Lat Joor Ngooni ɗeet a laye xoti xicce ne Samba Ceen a ŋaayna bo ne lay ne kene tax ke o fudu ta lay ne xoti jakkeer ne andoona yee te buna masal a ŋaayu ta lay kene tax ke fudu lat yo ngoni layne hatax kam fuɗɗu ɓon te ko fuɗɗu ka pisne ga yo nana layel malaw te sohna ka wago fuɗɗude lat jora layne cokkelo nene pis pisne na walay ɓe yo to layɓe muta soɓno ndaxar xana godin tayen a fuuxa a kam tuubid kam bugo jeblu te te ruusin ɓula te jegma a pe a ɗak a suur a ret a soɓa saate fa ando ngal na fop ka yongon ngal na tanaga den kippe ndongo ngi yelwaan wala ma saal ma tibbag sama doole dem no nga xëy yelwaa naa mbittu coo xam nu doole es day yeex a tawaar waa ndef na maa nga fop a fokat alal kaa fo rew waa a suur bo côté a reta bo ñaani a numtuwiid ke ta ina koy o jaxaw tagariid reta garna a soɓ mboole tagga ken cendo ke tout maad we Sénégal a ngata na mboyalaano mbino ngoor

a tuwidana ɓeera jaha almisa sohna cubbo sohna cubbo koye te tari to a fiɗno tew tari manna fatma cubbo fatma cubbo terima sin seh mbakke gaynde fatma ina sinig i njego kene so mbuɗa git ah, faal we naxa in no ka jereeruna o ga'anga seereer te paal paal lowa lay ɓe lay lowa dubaab dubaab lowa a xaƴ xooxum ta moƴ me rooga tanin o paaloxe xey a supta a xoaan ay ngimiñ tin laam galgal ayin wëc liif gu aj baajoor kenn jege na arxoon ab lonk hmm? o tukuloore xelay ay nu dariwu raseet liif joodo euh, liif taj i jubur ba kenn jege na arxoon o seer koy rek jango a canga xoolole andoona ye o aay lene muhammadu rasulullahi ma alazina amanu o aay lene ten a tuqa maxaarijul xurufa xe andoona ye te o seereer a jangu suptuwe in koy i xoox in sagan bo sëñ Touba are bonore na andona ye mi sax kam fuuxana xanana ye tarixa murit sëñ Touba Cheikh Ibra ka lay a bismillah jàmm ah sëñ Bamba dëkk la su fekkee tarixa ñu naan aw yoon man maa yoonu sëñ Bamba ah, te jub naa xocc sës naa rëkk yaa naa yang ki jàng rek moo réer ndax mbiru sëñ Touba xajul ci këy ah, i moof koy ba njëgoo kee nit xataa moof na acci ñes fop ka ngaro kaami ñume meɗa axe in fatarde e salte ayo yaam i njega xa ɓiy xa mbake mbake o ndaan señ avier te xene tiñe sa moofa o ndaan señ avier oxan oxan saate fa o xene o ndaan señ gaawano oxe a tiñe sa moofa in in sagante mbake mbake ande ke i na ndaa ina sinig fop kenem leya da im ñaxaar donc de ina sinig fop de i njego ka i anderna re ando naye señ tuuba ka to aɓe xooyin te geƴ nu nenen ɓaak bo sen commando fe a mof no yoq nan nga yoq na fo ka fadna ma ka fadna no maad we ka fadna fanweer waama da laye eh, bo sen commando fe de wona adwan kaaf ren wo capitaine ne ta laye Modou Mbacke fa nene kan yafin rek son la no ande ko bañna teere fo warga fo a fad wa roog sëñ Touba de lii nga wax bi sikkul waaye nii nga ma seere yamal xayam janaan ni seere boo seen lan nga bëgg mu ne ko man maa bëgg seen bu mu toj mukk te defal nañ la ko raa i moof na boo xam ne ndiig naa asini kama seen a kapoot jege te buur siin fi am na in nawet bu ñu toog bu nawet bi seetlu ko siin amul dara mësuñu ko ak tuubu siin moo na ko defal ay mbi angaan yi an ke i jëkk na ke bugg atuma doon rek roog a a in i njega kaa andoona yee leŋ njegiran nana i ngoorgoorlu na bambane xu foogna bambane rete wo retateeru na bambane xereta xu reteerna koy anda ye reteeru na bambane xereta de o longole ka lungu te tax wiin we mbeera in mene mbeera in mene ndetayo kene buguma lay i an ke i njegna i ngoorgoorlu na bambane bi jaay seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nu mbaasanaanoxa min alcheytan irajim bismillahi arrahmani irrahim وصلى الله وسلم على أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di jiital ci nuyoo bi ndaw yi nga xam ni jóge nañ ci ki jiite yoonu Cheikhul Xadim bi di Cheikh Sidi al Muxtaar ñu ñëw fii tey seet si bokki jullit yi nga xam ni ñi ngi fii ci dëkk bi ñuy tudde Ñaaxar yàlla miy dogal dogal koo xam ni tey kàddoom la ñuy waxe muy sëriñ Modou Mbacké ñu di ko dàkkantal ci dëkk bi muy ñaaxar ci la ko ñépp xamee sëriñ Modou Mbacké mu ñaaxar muy wajur woo xam ni dëkk bi bi mu fi ñëw ak léegi ay at la mu sancoon fi itam ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Nil alxalifatu thani li cheikh alxadim radiallahu anhuma wa nafaana bihima amin ci ni mu nu ko waxe bi ko sëriñ fadilu di yebal ci lëkk bi fekkoon na mu demoon ci beneen dëkk waaye ba mu daataan dem ca dëkk booba it fii la dëkk jaar Cheikh Mamadou Fadal laaj na ko fii ay dëkk yu fi dend yu bari bu mu ko tudd mu ne ko foofu de amut yoon da ngay dem ñaata na nga dem ba bu déwénee nga dellu si ma ñaanal la te samp la ba mu tàggoo bay bëgg a dem mu ne ko déwén dey mbirum borom be tabaraka wa taala demal tibb bee suuf ba mu tibbee suuf nee na andil ko mu ñaanal ko ba noppi mu ne ko ba demee na nga yëkkati ci soronu gaal nga def ko ba déwén kon moom amoon na ndigalul ñëw fi waaye lu doon tax muy wëndeelu ba ñëw fi lii gaa yu baax yi def tey loolu ab xaaj la woon ci li ko taxoon a jóg mooy lislaam tooglowul kenn ci benn barab lislaam dafay loo xam ni ndem dikk na Sénégal fa mu jóge sori na te aw nit a ko indi ginnaaw Muhammad sallallahu alayhi wa moom mi wàcce woon ci moom alquran te mu doon ci li nga xam ni islaam buy sax buy taxaw ci loolu lay sukkandiku wisaare googee li ko indi fii ay jàmbaar lañu ñoo ko indi ci réew mi muy Sénégal jaarale ko ci barab yi bari waaye mu nekkoon loo xam ni ba muy sosu ci jafe-jafe la sosu moom itam ñëwoon na fi jafe-jafe waaye bari naa na koo xam ni ma ngay wër barab bu mu toogee bu dee ci nit murit yi ñu ko sañ a waxee ña ca ëpp fu ñu làq seenub murit ak fu ñu làqutoo seen diine ba mañ koo sàmm loola ca la leen daa tax a jóg ca la bokk sëñ Modou Mbacké mii loolu moo ko taxoon a ñëw ba fii waaye borom bi sëriñ Touba bokk ci ndigalul borom bi te ci la daa waxe daana wax ni lu ngeen di def ngeen def ko ci ndigal danay tax la ngeen def mu dëppoo ak lay amal la ngeen bëgg te mbir mu nekk dañ koy tënk ci charte bu amul la muy chartal du mën a nekk achartu an mahiyatin qad xaraja wa ruknu jusuha biha qad walaja lakin kilahuma ida man adama in adamat mahiyatun baynahuma kon ndake Serigne Modou charte bi mu doon wut ci Cheikh Mouhamadinil Fadal looloo ma waral jataay bi tey keroog ba ci amee ndigal boobee la tàmbali di dox yàlla def na it duni islam bi fii fu ci tollu nuna waaye nag loxo ma ci biir waaye ñi fi fekk itam jàppale nañu ko muy góor muy jigéen ñépp a jàpp ndax lenn ci sunu rakk yi fi teew doomi dëkk bii lañu loolu kon wane na ni dëkk bi jàppale nañu ko bu ñu ko jàppalewul woon loolee ko sëriñ Fàdilu digal bu ñëwee fii bu boobaa day xala jafe mujj ca jéem waaye du mën a nekk te jàppale kenn koo xam ni lottoo ku dul boor bi amul ci àdduna ku kenn jàppalewul amul Moustapha sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko sarse woon la mu la mu doon dox te yàlla ma ko def bu ko neexoon samp ko te kenn du ko mën a sempi waaye da ko wutal ay cëslaay ñu di ko jàppale ba ci Cheikh Ahmadou Bamba mi tey waral lii ci jàppale gi rek mën nañ ñoo wax ni keroog bi muy dem di liggéeyi liggéey bu am solo bii waral cant gi ñuy waajal ba tax ñu baax ñi dikk fii tey ay bokkam ak bokki taalibe la bàyyi woon gannaawam ñu di ko saytul gannaawam te loolu xaadimu rasul bind na ci moo tax lii ngeen di def bokk yi ak ñi gën fi fekk si lii ak jàppale la ci Sëriñ Tuubaa ci lim bëggoon yaatal diine ji ba mu daj kapp réew mi génn ba bitim réew li ngeen di def ci la koy jàppale la bokk ndax kat waxoon na ca téeréem bu mag bu rëy ba ni ayaa xaadimal muxtaari laa tansa saxbahu fa man yansahum fal madxu madxun muqattaw kon bu ñu ni jàppale nit kenn koo xam ni jàppalewuñ ko am na ci àdduna amul kon lii ngeen di def jàppale Sëriñ Tuubaa la yal na yàlla jàppale leen nam jàppale sëriñ tubaat ba li tax ngeen di dox sëriñ Touba am ko ci mbooloo mi waaye yéen ngeen am li ngeen di dox ci seen diggante mbooloo meeg Serigne Touba Serigne bi Serigne Modou Mbacké nag bég na lool mi ngi delloo dénkaane wat jëmmi boppam ci mbooloo mi di dénkaane yéen njaboot gi ndax bàyyi na fi Abdul Qadir la mu ko togg ci mu war koo def mooy lañ fi waroon a def mooy jaamu yàlla te moo jiitu lu ne ndax moo tax ñu bind nu ak xamle yàlla jaarale ko ci téeréem bi jaarale ko ci ci mbind mag ñi te kat bokki jullit yi du nu bàyyi mukk ba jàll du dañuy fàttaliwaat sunu bopp ci kàddu sëriñ Modou ndax li ko fi taxoon a ñëw mooy lislaam ñu bàyyi xel ci lislaam bokk yi sëriñ tubaab bu dee sonn bëgg lislaam la waaye keroog bi ko natt bii daataan dal lu waay doon am rek ca yooye jamono ci bokkam yi fi nekkoon amoon na ko moom amoon na xam-xam ba amoon na xamle ga amoon na mbooloo ma kon leneen lu mu doon rek nun ñii di mbooloo mi di taalibe yi ak jullit yi looloo ko taxoon di sonn loolooy mu doon sonn nag neenul waaye nañ ko ci jàppalee ci dëggalal ko wala mu doon dox te kat nun kat noo noo dikk ni ko danoo bëgg a jàpp ci sa mbubb ànd ak yow foo jëm lu jëme lu jëme lu fa nit nag bu fekkee ni moo ñëw ni nit dama bëgg a ànd ak yow te bu naqaree mu mu bàyyi bu bàyyee na xam ni mooma waaye kam jàppoon moom ma ngay dem Sëriñ Tuubaa mi ngi ci yoon wa nga xam ni moom la yàlla rëddoon te bam nuy indi itam laa biirinu moom borom bi tabaraka wa ni woon Moustapha sallallahu alayhi wa sallam na nga ma fàttalil sama jàmm yi dañ koy fàttaliwaat di ko fàttaliwaat di ko fàttaliwaat ay yooni yoon wa dakkir fa inna dikra tanfaul muminin Eh, kon ndake ngal la bokki jullit yi fi teew bokk yi ci sun gannaaw war a andi li leen sëriñ bi yónni te loola war a lëm làmboo ak fàttalinu ci fan lan jëm ak fun jóge ak lan lan war a def ak fu nuy mujj loolu ñu bàyyi xel ci ni nanu gën a dëgëral sun fas fas sun digg ak sun boroom ndax kat kiy mën a dégg la koy amal njariñ mooy koo xam ne xolam fos na ca boromam tabaraka wa taala te bokkaaliwu ko kenn moo tax bi yàlla di wax ni ko fàttalil dana amal njariñ néewu ko fàttalil dana amal njariñ muslim fàttali dana amal njariñ mu'min la wax te al imaanu la jàmm bi ko am mooy ki nga xam ni la ko yàlla digal moo ko gënal leneen lu ko keneen mën a digal ku mu doon ci mbindee te loolu foofu la bëgg Seexul Xadim nun ñëpp di ay taalibe nun ñëpp di jullit ñu teg suñ tànk ci foofu caaxaan yi bari na lool caaxaan yi bari na lool waaye dëgg rek a fi ne te mooy sax walla fii léeg-léeg ñu wax léeb woo xam ni léeb woowu dafa niru lu dëgg waaye dëgguwul mooy lu lu lu yàgg dëgg la loolu lañuy wax lu yàgg dëgg la déedéet lu yàgg a ngi fi lislaam miy dëgg am na yu ko fi jiitu te lislaam mooy dëgg ndax borom bee ko wax inna diina inda allahi l islaam borom bi tabaraka wa taala moo yónni woon ñépp waaye comme ma sa yónni ku nekk ñam ko topploo woon ba ñu gàntoo gàntoo topp ga da leen laaj seen xalaat ku ne wax nga ca mën nañ cee tànn rek yonent yàlla nuux alayhi salaam ki nga xam ni moom la ñuy tudde abdul xafaar nga xam ne jooyam yu bari moom ju ñu di ko woye noo naw mooy ab jooykat dëjjeetukat abdul xafaar la tudd waaye lu taxoon muy jooy borom bi tabaraka wa taala dafa bind ci mbindeefam na ko soob mu benn mu bind benn kël bu wutal ko ñeenti bët mu di ko xool moom noox ba ni ko yaa ñaaw mu ne ko mu ne ko bu dee ci bind bee bu dee ci bind bee ba ma doon bind sama bopp du ma doonu kël waxumaa di mel nii mu mel kon ka bind bu fekkee mooma man tuuñu ma kenn loolu bu ko seetloo di jooy di jooy ba dëkke jooy daanaka ba mujj ñu ni jooykat bi nuux moomu nag bi mu wootee woote nit ñi di dellu gannaaw la mu doon wax cërle ko yàlla ni ñu di ko contre di doxe ne ba soxnaam ca la bokkoon doomam bokk ca yéen bokki jullit yi li ñuy wax góor ñi ak jigéen ñi ñoo ko bokk topp ndigal bàyyi tere yonentu yàlla nuux alayhi ba ko yàlla waxe loo ci namm ci ñoom da ko ne bu fi ba kenn bu fi ba kenn koo fi bàyyi dana réeral sa jaam yi fi nekk te ay saay-saay rekk la ñu fiy jur di doon yéefar laa tadar ala al ardi min al kaafirina dayyaara innaka in tadarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafaara kon loole nga xam ni moom la ñu waxit waxoon yeneen moroom yi yonentam jaara nañ feet seen mbooloo Cheikhul dub yonent waaye roy na yonent bi nga xam ni moo gën ci yonent bi muy musta mu yonent yi muy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam waaye gaañ yi nun ñëpp lu bàyyi xel ci ni kenn ku nekk am nga sañ-sañ te fab sa bët wékk ko ci Moustapha sallallahu alayhi wa ndax dafa am benn baat boo xam ne nun ñëpp a ko bokk ku nangu dugg ci biir muy lakum fi rasulillah iswatun hasana ci lakum jooju kaaf googu ak miir mi nun ñi ñëpp ci lanu bokk kon ku ne am nga sañ-sañ gis ko la doy nga defee ne mi ngi dox sa digg ak Moustapha sallallahu alayhi waaye nga dem ba gisatoo ko fabal sa bët sa bët nga wékk ko ca la la yàlla waxoon muy roy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam te kat roy ko moo waral lii tey jii ko gis mbooloo mi mais yàlla képp tax ñu daje fi yàlla rekk a tax ñu daje fi ndax nituk yàlla tax ñu daje fi kon nu bàyyi ko xel ndaw yi ñu am ci ñoom yaakaar lool ñu di leen dénk di dénk suñu bopp nu bañ a fàtte ci ndénkaan li suñu bopp naa ata'muruna naasa na birri wa tansawna anfusakum ñu di ko fàttaliku ngeen gën a góorgóorlu lu ngeen di def ak lu ngeen man di jàng na ngeen jiital ngëm seen borom tabaraka wa la jiital topp yàlla ci di ko jaamu ca la mu rëdde ñu di ko ko jaamoo ñu di ko ca jaar di ko ci jaamoo ndax kat yàlla moom ku am fulla la lam dogu woon ni da koy def ba léegi nun ñi gàllankoor gi ñu yeex a tax ñu yeex a ñëw ci jëf yàlla jooja la bokk te nun ñépp ko gëm te mooy kullu nafsin sa'iqatul mawt ginnaaw nag mi ngi ñëw nañ ko waajal bàyyiwu fi ndaw bàyyiwu fi góor bàyyiwu fi jigéen kon lu ñëpp ñu góorgóorlu ci kàddug sëriñ Modou Mbacké laxasaayu waat xeñtu njàngale mi nga xam ni sëriñ Touba doon na ko jàngale te yaakaar naa ne bokk yi ci suñ gannaaw te ñëw fii tey teew si njàngale moom rek lañ bëgg a wesaare ba nun ñëpp nu bokk ko dégg xam ko te topp ko sëriñ Touba réeralut kenn sëriñ Touba réeralut kenn bañ na ko ba nee na na ngeen sàkko xam-xam waaye ku leen ko bëgg a xañ ku leen bëgg a xañ sàkko xam-xam na ngeen xam ni kooku iblis la wutu ci kaw suuf muy xalifa benn képp koo xam ne digal na leen lu dul la leen yàlla digal na ngeen ko moytu mu teg ca ni yéen ñi nga xam ne dangeen a wax ne man ngeen topp maa ngi leen di dénk ngeen teg seen tànk ci sharia ak sunna yaa machara atbaa yi la wax kon nag nun topp ñu ku dul Seexu Ahmadou Bamba yaakaaruñu ci sunu doxin muy doxin wa jëpp ku dul Seexu Ahmadou Bamba waaye gëm nañu nag gëm nañu li nga xam ne yàlla def na ko ndax tey sëriñ Modou Mbacke bu ñëwee fii ngeen ko jox ko cërub Seex Ahmadou Bamba la mu doon ca Seex Ahmadou Bamba tax ngeen jox ko ko loolee mu ca doon nag moo jiit lu ne ndax ak bokk yàlla ko sàkk te sàmmlu ko kon loole mu ca doon doon ko ci wetam gune moo ko indi fii moo ko jox ndigalul doomi Serigne Touba ji di Cheikh Mamadou Fadal ba mu ñëw fii yéen kon bu ñu dikkee teewal ko mu waroon fee toog tey kaddu yi may wax mooy war téefam ci digganteem ak yéen ñi ko teeru bu doon ca la woon bu njëkk yéenay ansaar yi nga xam ni yéen ko jàppale kon moom bu doon kuy ànd ak muhaajir la ñu néew a néew lay àndal bu watuwut soxna rekk lay doon kon yéenay léppam kon nag bu sañoon foofee nga xam ni fa la nekk muy tuubaa te la ko fa delloo mu di mage waaye samp na fi ñu ko war a mën a teewal ca loola moo tax jataay bi bu dikkee bu ñëwut te yeble ka muy yebal la mu koy dénk mooy boo demee nga fàttalil ma leen suñ borom min àndee ndax suñu boroom rek ngeen àndeek moom cheikhul xadim rek ngeen àndeek moom te suñ borom ak cheikhul xadim duñu ñaar ñoo xam ni dañu di ay nawlente kee daa moom lépp muy borom bi waaye kee da ko xeeñtul ak di ko sàmmal léppam ci jaam yi loolu ma dox diggante sëñ bi keneen ku koy tuddoo fi barabit doxin woowa nga war a dox wax yooyu nga war a wax melo woowa nga war a yor kon ñoo ngi dellu di sant mbooloo mi nga xam ni jóge nañu ci sëriñ bi Cheikh Sidi El ak ci ndigal ki nga xam ni moo ko nekkal ca na mu ko waxe woon ci rajo ñun ñépp noonu di ko dégg muy kàddoom di bëtam di doxinam muy Cheikh Mouhamadoul Bachir ibn al imam Cheikh Abdoul Khadr Euh, ñuy ñaan ci borom bi tabaraka wa taala mu dëgëral ko ci li ñu ko togg muy lu diis waaye mu tiim ko am na lu lu ñu yan nit loo xam ni yan ba mën naa woyof ndax yanub xel la yan boobu nun ñépp ku ci ne yanu boo xam ni bu tegewoon ci sa kaw bopp doo seqi benn jéego waaye yanub xel la yanub xel nag bu ko ci ñépp ta jàppalee dana woyof tooñ yi te gaa ñi fi ñëw bokk yi fi ñëw sang si fi ñëw jàppale koo tax ndax kenn nit mënta daj kapp fu ne waaye fu ñu dem mel na ni Cheikh Bachir moo fi taxaw tey mel na ni seen sëñ Cheikh Sidiyal Muxtaar al Xalifa Am moo fi taxaw kon noonu seen jëmm yooyu rek lañ leen di xoole ñoom ñi fi teew ñépp ñuy ñaan ci barke Cheikhul Xadim euh, kaddu yi ñi fi yëkkati yal na lamboo kàddu yoo xam ni day tàbbi ci sunu xol nu déglu la ca jub yastamiuuna alxawla fa yattabiuuna ahsana yal na nu ko yàlla tawfiqale euh, lu ci jub nag ci Cheikh Mouhamad Mbacké ñaaxar la waaye lu ci dëng kàddu Mouhamadunil Fadil mii di wax ak yéen la waaye bu ñu sañoon lépp day doon lu jub euh, li ñu ciy dolli rek mooy dafa mel ni islaam ba mu sox sox sosoo ba tey di am soxla ña ca jiitu woon ci jàppale ga suñ bokk jigéen ñi ca lañ bokk euh, nuy dénk suñ bopp di leen dénk yéen bokki jullit yi jigéen yi ngeen bàyyi xel ci ni yéen a jëkkoon ci diine xadija bu diine taxawee kenn ëpp ko ca ab jéego waaye ñu bàyyi xel ci ni ànd ak ku baax lu baax la waaye mooy boo déggee ndigalam muy góor muy jigéen la ci yem yonentu yàlla nu wax moom ma tuddoon soxnaam sawara la jëm yonentu yàlla lóot soxnaam sawara la jëm am na koo xam ni mësula am borom kër aljanna la jëm kon ndaw li bu amul borom kër yi na te jàng boromam mariyaama àjjana la jëm euh, ibraatu firawna àjjana la jëm kam yaroon moom ibraatu firawna moo gënoon a bon ci àdduna waaye la ko ca musal mooy nangu dogalu yàlla kon lu yàlla dogal ci nun nanu ko nangu waaye nu nangoo ko ni bañ bañ mu bañ a doon ak muñ rek waaye nu nangoo ko ci sant borom bi ko dogal te lum tànn loolaa gën borom boobu nag moo nu tànnal xaadimu rasuul kon nan ko nangu te topp ko cofeel gi ñuy woote ci moom nag ni moom la nu sopp innal muhibba liman yuhibbu muti muti boo toppee dara boo soppee dara da nga koy topp qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allah mustafa sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñi ngi leen di nuyu ci turu Serigne Touba Cheikh Sidil Muxtaar ak ci turu kilifa yi nga xam ne ñoom la teg ci kanamu njaboot gi muy cheikh Mouhamadul Muntaqa ibnu Seydil Bachir cheikh Mouhamadul Bachir ibnu cheikh Abdoul Qadir cheikh Abdoul Ahad Mbacké ibnu cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma ñu boole ñu ak Serigne Modou Mbacké si muy jëwriñi karawaan bi eh, Serigne Alxaaji Fadilu Mbacké ñu ngi lay jotal. nuyoo sëriñ boobu ak bokkam yooyu nga jotalal ko ko mbooleen njaboot gi kon jotalal ko sëriñ Modou Mbacké ñaaxar ak mbooleen njaboot gi yépp muy góor muy jigéen di mag di ndaw sëriñ baa ngi leen di nuyu mu ngi leen di sant mu ngi leen di ñaax waaye mel na ni alhamdulilah xam naa danañ jégglu jataay bi yàgg na yàgg ngeen lool ñu door a agsi kon loolu ci la ñuy jëkk a jégglu waaye loola du dara lu rekk ñaan gu nangu nit ñi seen xër ci sëriñ Touba nga xam ni eh, da nga jóg sax di dem fekk mbooloo mu taxaw ñu kare la noo xam ne doo ca man lu dul nuyóob ñoom maslaat ñoom jox leen nuyóob sëriñ ba doole jàll danga dem ci barab defe ne duma fa def waxtu da fa def sax ñetti waxtu te daanaka boo féquwul féq gu metti ngir ña ngay fekki sax danga nga dem ba mujj teggin sax da ko xaw a xotti ndax bëgg a jàll rekk kon li ngeen fii nekk ci bëccëg gi lépp ñu ngi koy yëg di bëgg a agsi waaye ngant yi rekk la woon ñu ngi jéggalu ci loolu jataay bii tamit yàggaat na dolli ci waaye insha allahu taala kàddu gi dina mën a gàtt lii tax mu gàtt mooy li ci waroon a aju lépp ci ab soññe defe naa ne lii sëriñ Fàllu Mbàkke wax léegi mat na sëkk eh, bépp soññe bu aju ci wàllu diine moom lii mu fi joxe ci ab yóbbal mat na sëkk bu sëriñ Sidi Muxtaar ñëwoon di soññee it du mën a weesu lool yi kon li ñuy def rek mooy li waral yonent bi rek la ñuy wax bu ko defee jërëjëf sëriñ sëriñ alxaaji Fadilu Mbakke kàddu yi wax dëgg yàlla mat na rafet na yaakaar naa ne sëriñ du ma la doon yebal xam na la waaye bu ko déggee dina ca dégg mat na sëkk mbokk yi kon. Eh, Cheikh Sidil Muxtaar moo yebal mbooloo mi ngir ñu nemmikul ko mbokki taalibe yi taali sëriñ Tuubaa yi jokkal ko mbokku jullit yi muy mbokku diine gi wax ne fépp fu fi taalub sëriñ Tuubaa nekk su ko mënoon mooy jógal boppam ci jëmmam ju tedd ja ñenn ñu nekk mu fekk leen fa ñu nekk saafonteeg ñoom sant leen ci liggéey bi soññi leen bi nga xamee ne jenn jëmm am na ngant ci loolu mu saxal at mu nekk mu joxañ aw tund sàkk ay ndaw ne dem leen fa nenn kul ma bokk ya fa nekk saafoonteel ma ak ñoom siyaaral ma leen soññal ma leen kon loolu mooy tànk yi tey jii di tànki soññaat soññewaat ci wooteb sëriñ bi waaye jokk bokkub diine gi kon bi ñu dikkee fii fekk bokki jullit yi fi nekk ñu booloo booloo wi rafet eh, wii yeneen bokki diine yi nga xam ne sax ñi ngi ci biir diine ji te bokk te te te te nekk ci yeneen yoon teew fi teewaay rafet jël fii kàddu kàddu yooyu ñu wax yu ñu rafetlu la yu sëriñ bi sant la sëriñ bi na ca loola bu baax ndax ak dëkkandoo dafa am taxawaay ci lislaam ak dëkkandoo dafa am taxawaay ci wax nañu ñu sax ne eh, seen mbokki ibli église bi ngeen dëkkal fii ci suba ba léegi seen ndaw a ngi fi woon ittee ittee ko ndax mu dem ak dëkkandoo dañ koy rafetal lislaam tëral na àqi dëkkandoo sa mbokkum dëkkandoo mi ngi dëkkal te jullit sax am na loolu àq yu la war ca moom di ko sàmm kon xam nañ ne yéen àq yooyu yéen a koy sàmmanteel te loolu sëriñ bi daana ko santaane ndax moom dafa ne woon yett la séq ak boroomam yett la séq moroomam te yooyu mooy maye jàmm yett yim séq ak boroomam mooy lu mu digle mu def ko lu mu tere mu bàyyi ko wala lu def sax lu muy tere te lu mu dogal mu neex ko yett yim séq ak moroomam mooy lu mu am bokk ak moom lu moroomam am mu bàyyi ko ak moom te tooñ kenn te ku ko tooñ mu jéggal la gis nga mbokk yi bind googu boo xam ne suñ ko maase woon jàng te topp ko àddina bépp jàmm lay am kon rafetal gi dëkkandoo gi eh, sëriñ bi sant na ci bu baax loolu moo sabab bi ñu bi jógee ba léegi dangeen dégg ci sawaayaay ay barab yu bari ci biir réew mi ñu jaar fa ba ci barabu ma ba jaxu ci suba loolu yépp rek ngir jokk bokk diine ji ak rafetal ko e, loolu sëriñ bi dafa ko ndigal la loo xam ne sëriñ bi daf ko yeesalaat waaye lislaam a ko santaane innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum sëriñ bi dundal loolu dundal yéen wu rafet rafet rafet rafet woo xam ne sax li ma ci daan jël ci guddal duma ko ca guddal waaye mbokk yi fi jëkk a jaar muy imam bi Babacar ba ci préfet bi xam naa dama sonn waaye mooy kilifa jataay bi teewal fi kilifa yu mag ki waroon naa ko nuyu waaye xam ngeen ne coono bi rekk la ci ngi kon ñu ngi jaarale ci turam ak maire wala ki ko fi teewal ak mboolem kuy autorité ñëpp ñu nuyu leen siyaar leen ñoom it yëkkati nañu kàddu yu am solo yoo xam ne loola ñu wax rek dama koy confirmer mu dëggal njàngalem sëriñ bi ci wàllu googu mooy sëriñ Touba l'islam la doon wooteel l'islam la doon yeesal l'islam la doon yeesal nag bu ñu ko waxee kenn ku nekk sa xel na dellu ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yabxasu li haasihi l borom tabaraka wa taala dana yebal jàmbaari l'islam yi nàmm seen pasteef ubbi seeni xel ak seeni xol lépp lu luñ dugal ci lislaam te bokku ci mu génnee ko ci lu ci bokkoon te ñu bàyyi ko mu delloosi ko ci loolu mooy tajdiid bi gaañu baax ñi wuutoonte fi di ko def ba ci sëriñ bi ba ci sëriñ bi sëriñ bi ci boppam fis ci ay mbindam lool bil mustapha nawaytumaa yu jaddidu lil mustapha nawaytumaa yu jaddidu sunnatahul xarra wa ahmadu ak yeneen yu yor max naa yooyu yu baree bari wa biyee jati di sabil bi daa ngi dalaw ak yu baree baree baree bari diine la doon yeesal si gis nga sax euh, ak Abdul Ahad dafa wax ne sëriñ Touba nee na yoruma ab tariixa damaa ñëw fekk yoon wi yonent bi sallallahu alayhi wa jaaroon ak saxaaba yi mu far gay yi mu far gay yi mooy mu far ba raaf ba gisatuñu ko ma gajj gajj ba buub ñax ma ne ku bëgg a dem na sóobu kon sëriñ bi diine la doon yeesal si gis nga moom ci boppam loolu la wax ci mbindam ubdi sabilallahi lil xudaati za xidmatin li rahmatil muxdaat waaye ubdi sabilallah yoonu suñ borom yi moom lay yeesalaat si mbokk yi sax lu bari ci seetlukat yi ay jàngkat a ngi fi sañ Alaaji Fadilu ak ñi ci des ndax benn gëstukat akub jàngkat ci yoonu murit daje gunnaak Sëriñ Tuubaa mu bind baatub almuridiyya ci mbindam yi nga xam ne mooy askanale almuridiyya baat bi nag mat na dégg li ñu tudde muridisme bokkut ak almuridu muy l'adepte almuridu moom sëriñ bi daf koy bind boo demee ci alxuraan fekk ko ci mooy murit bi waaye askanale nit ñi nag ci ab tariixa rek ñu jaar ci wenn yoon sëriñ bi diina jële doon yeesal almuridu la wax te al muridu mooy kinam boroom isil muridu lay sa yuridu abada xayra rahmaani ay su xasada nee na murid mooy koo xam ne foo ko seen muy dem ngërëmal yàlla lay lu dul ngërëmal yàlla itteelu ko xëy na tubaab yi ci seenu teqale ak nit ñi ci seenu defin li ñuy wax étiquette suñ bëggee taqale nit ñi moo tax comme am na ñu fi jëkkoon a wootee lislaam ay jàmbaar lañ lool seeni mbooloo tudd seeni tariixa mu dellu ca ñoom lu gën a bari ci loolu tax ñu askanalewaat yi fii ci baatu almuridiya waaye bu fekkee rat na ci mbindi sëriñ bi man de gisaguma ko dégg guma borom xam-xam bu ne ma gis na ko loolu pour ma pour misaal mi ma doon joxe mu leer bi fi ñeneen xisee jiitu te def ay tariixa mu am seeni tur keneen ku dikk te woote ñu tuddeel la tuddeel la la nga woote ñu tuddeel la ko sa bopp dafay yomb xam nga lu tax wolof day wax ne suñuy rëbb janax ju jëkk ji ji jëkk a tëb mooy tudd janax jeneen ji tëbët dañ naan jeneen a ngoog jeneen a ngoog jooju rek moo tax ñu indil ñu loolu waaye sëriñ bi lislaam la doon liggéeyal kon nañu ko xamee noonu sëriñ bi setteewul kenn képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa waa ashhadu anna muhammadan rasulullah sëriñ bi ci njabootam la la boole mi ngi lay liggéeyal mu ngi lay ñaanal wa axrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma kon sëriñ bi loolu yi mooy gis-gisam ba tax kon Cheikh Sidil Muxtaar di wax ne képp koo xam ne yaa ngi askanoo ci sëriñ bi mi ngi lay bàyyi loo xol loo xel lool yi nga rafetal sa diggante ak sa mbokki jullit te loolu munta am te rafetaloo sa jikko ci sa bopp ndax bu ñuy wax diine jikko moo tax ñuy wax diine bu ñu koy wax jikko la jikko yu baax innama bu'istu li utamma makaarimal axlaaq la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon kon jikko yooyu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax su loolu jàllee sëriñ bi di soññee bu baax ci bis bii ñu jëm muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di bisub màggal gi bisub màggal gi di bis boo xam ne jaadu na lool ñu gën koo waxtaanee gën cee yeeteente gën cee soññante ñu gën koo bàyyi xel ndax bis bu fekkee ca la sa mbir defaroo tey ak ëllëg te sëriñ bi nee na li ko boroomam defal lépp ci bisu màggal gii la ko defal kër ak juróom-ñett ci safar ba tax mu wax ne saa bu bis bi dellu seetee koo xam ne sama mbég sa mbéga nang ma santle yàlla mbokk yi leneen yi des lépp sëriñ bi da ngeen a gis mu def ko ba defaale ñu ko lii nag mu wooj mu wooñu ci nañu ko sant yàlla kon woote sëriñ boobu nañ ko wuyu bu baax sant yàlla sëriñ bi sant sant nag boo bëggee ki ngay sant sant danga koy sante lu mu sant moom kon màggal munta weesu munta génn li yàlla sant ndax sëriñ bi ci boppam wàllu xew-xew dafa cee wax lu leer ba mu wootee gàmm daf ne tax tax siimuhu bi sunnati kon leneen lu mu woote mbaa ñu wooteel ko koy tax siimuhu bi sunnati rek nañ ko teg ci ni dëppoog li lislaam digle teg ci li dëppoog li lislaam digle màggal mbokk yi mat naa fonk mat naa bàyyi xel bis la boo xam ne dafay feeñ ci àddina di feeñ ci àllaaxira Sëriñ Tuubaa Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu dafa wax ne ëllëg yowmal qiyaamatil akbar bu ñu demee aljanna amut bis ak i guddi ay bëccëg ak yi guddi wala jant bi fenk kaso waaye suñu nekkee ca aljanna di fa dund ba waxtu wi ñu daan màggal Tuubaa jot ajjana la mu doon neex neex suñu borom dana yokk neexaay wa la mu doon rafet rafet suñu borom dana yokk taar ba ba mbooleem waa ajjana yëg ne ajjana gën na fee neex dàq na fi ñu maase ne lii lum doon lu tax suñu borom def lii ñu ne ba ñuy nekk ci àddina waxtu wii moo doonoon bisub màggalu Tuubaa mbokk yi bis boobu mat naa bàyyi xel mat naa waajal mat naa fonk mat naa liggéeyal sëriñ Saalix yàlla suñu borom dolli leeram nee na fu fi ñaar dende dafa wax ne sax sëriñ Touba daana wax ci màggal gi ne fu fi ñaar dende kii di ko fonk kee di ko ñàkk fonk ka koy fonk du noppee gis lu muy tiime ka koy ñàkk fonk kon dafa mel ne jiitu gaa ngi ci màggal gi ku la ci jiitu jiitu na la ku la ci jiitu jiitu na la te bis su fekkente ne gaa yu baax yi am daraja ci seen borom daf leen a jaral ñu jóg di fekk ci sëriñ bi ci bés bi di ko ci ndokkeel innal lasina saxidu fil mahraj wa jahadu kulla abin musrik lii xaada rabbi maa bihi yaxbitu nii kullun wa kullun zairun li watani bis boobu mat naa fonk mat naa bàyyi xel luñ ko fonk doyut luñ ko waajal doyut ndax sëriñ bi liggéey bi daf ko fonkoon daf ko waajaloon daf ko bàyyi woon xel xoolal koo xam ne fukki at ak ñett jekk na ko taxaw wa azhara al xidmata ama jay sasin wa xalbuhu atmaraha min asasin kon bis boobu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax nañ ko bàyyi xel bu baax te fonk ko waajal ko waajal yi wa ca gën mooy jiital tuubal suñu borom ay bàkkaar jéggalu ko jéggalante ci suñu biir waajal ko ci njàngum alquran waajal ko ci njàngum xasiida waajal ko ci dimbalante waajal ko ci defar suñuy jikko ba fu waay nekk te nekk faakub taali bi yëg ne kii kat am na lu muy waajal suñ nee lu mu doon ñu ne màggalu Tuubaa yi waaj a ñëw ñu am melokaanu ngën ji jullit te door a waaj dem Tuubaa wata sa wadu fay na xayra saadi taqwa kon loolu la sëriñ bi di soññe di ci bàyyi lu xel bu baax bëgg di ko digal murit yépp te di ca woo jullit yépp ñu ànd ko ndax koo xam ne bi muy liggéeyal jullit yépp la liggéeyal te li ko suñ borom fay ñëpp xaj nañ ci moo tax sëriñ bi bëgg jullit yépp wuy si ca woote boobee di màggalu Tuubaa kon loolu ñu ngi koy loolu rek lañuy ñuy fàttali di ko soññee di ci bàyyi lu xel muy góor ñi muy jigéen ñi di mag ñi di ndaw ñi teñ bàyyi xel ci melokaan yi bu baax bàyyi xel ci melokaan yi bu baax ak jullit ay jikko la ak ay melokaan waaye du ture sant kese loolu nañ koy bàyyi xel bu baax wayjur yi di ci dimbale njaboot yi wayjur bu nekk xam ne responsable la ci kanam boroom ëllëg ci njabootam ñu taxaw ci njaboot yi dimbale leen ci melokaanu jullit ba tax ñu mën a mat dëgg-dëgg ay jullit mën a doon dëgg-dëgg ay murit yàlla nañu ko yàlla defal ñu dindi ci dee ci dekk ci dajeeg suñu borom mu gërëm ñu boole ñoo ak Serigne Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi